immigration clandestine mu ngi wéy di def ay jéye ci senegal ak ci Afrique bés bu yàlla sàkk ñu tàggee doomi réew mi yoo xam ne dañoo jëloon mbëkk mi ngir utali bitim réew far des ci géej gi looloo waral bés Mamadou càmm di njiital RENES muy réseau national des entrepreneurs du senegal ànd ak ay naataangoom amal bésub dajaloo ak weccentey xalaat ngir indi ay saafara ci jéye jooju réew ay ndaw ñoo koy tabax te ay ndaw bu ñu découragé ci réew dañu war a fexe lu leen di encouragé waat dañ mën a toog ci seen réew liggéey xale yi bi toog yëpp man dinaa leen jox benn exemple tey ci man laa koy joxe man bi may jógee Kaolack di ñëw Dakar bourse bu la laa yor bourse wàcc Colobane dem Grand Dakar boobu laa nekk léeg-léeg ma a dem Dakar paas dërëm mu dëgg damay dox visa bi ma njëkk a utal mi ma boole ak Demba mi moo ma ko njëkk a utal Allemagne ma ne ko dew yow dina tax a ci réew fii moom fi tax a toog foog ñu gëm suñu bopp ci réew mi ba pare soog mën a génn suñ ko gëmul duñ ci génn bon di gërëm renes waa renes yëpp ñu ñu topp ñoom lañ bokkal mbir mi ñu ay nit yu baax bëgg liggéey Renes liggéey moo ko tax a jóg ay entrepreneur yu dajale ñu du ku nekk doon liggéey ci côté ñu dem ba ci biir mu dajaloo créé lii man nag la yàlla may xel mi waaye taxut ma ëpp kenn xam bon li ñu ci yokkaat tuuti rek mooy gën a ñaax ndaw ñi gën leen wax ne Sénégal am na liggéey bu ñu état jàppalee ñun am nañ solution bu leen dimbalee yéen que solution yi dana génn bi tey parce que ñun ñu koy waxtaanee ñun suñu biir toujours parce que réew liggéey moo ko amee man damay faral di wax benn exemple bi loolu dama koy yónnee parrain bi moom dana ko mu nguur Sénégal képp mënoon nañ ko paabee te ñun waa dëkk bi ñoo koy paabee ñun boo demee Turquie doo dox ci suuf paaba rek ngay dox mais ñun ñoo am matière première am nañ suuf am ciment am bazal dama xam ne li may bu ñu maire bu Tivaouane di Demba Diop Sy nga xam ne sax moo nekkoon parrain bés bi yëkkati fa ay kàddu yu am solo di wane ana naka lañu ñu war a taxawoo yooyu leen ndaw gindi leen ba noppi utal leen liggéey. bu baax parce que bu amee benn problème si dëkk bi am ay entrepreneur yu jug si ñoom seen bopp parce que boo ñu bu ñu entrepreneur mooy ñi nga xamee ni que dañoo dem si seen doolee bopp liggéey ba am te kenn jàppalewu leen donc dañoo gëm seen bopp boo tax ñu toll fi ñu toll donc ñooñu bu ñuy def seen rencontre nekk ay xale nekk ay ndaw ñoo xam ni yàgg naa ànd ak ñoom ci terrain tey moo leen gis ñu formé lu mel nii def ma parrain daaw dama yaakaaroon ne ci rek lay yem ren ñu waxaat ma yow yaay parrain toujours donc kon loolu dafa nekk lu am solo donc boo bu mu ñëwee fii ak thème bi ma leen fekk ñuy wax dama leen di wax li nga xam ne moom laa ci xalaat parce que xëy na mi ngi am si dëkk bi te peut-être mosuma ci intervenir mosuma ci wax mais ñoom permettre nañ ma ma wax si wax ci sama xalaat ndax dëkk bi dama wax ne que li nga xam ne moo koy jëkk a développé mooy d'abord nit ñi am xel euh, xol bu yaatu am xolu dimbalante loolu mooy jëkk d'abord si réew mi il faut que nit ñi jàpp ni kenn ku ci nekk war ngaa mun a dimbali sa morom dëkk bi du concours ndimbal entre ñun du tax nit ki wàññeeku du tax nit ki dellu ginnaaw maa waxoon leen nag léegi ne leen comme loolu ngeen bëgg a faj boo leen koy faj il faut ñu jaar ci ay canevas canevas bi ci jëkk jot comme ñoom ay xale lañu xale yi ni ñu gëm seen bopp ba pare parce que mënoo euh, ja ànd ak koo xam ne que moom li ngay defal bu fekkee mot na day yaakaar war a génn réew mi pour réussir parce que ñun fii dañu toog réussir kon yaakaar nañu keneen ku fi toogee war nga mën a réussir donc loolu moo tax ñu wax xale yi nañu toog d'abord ñu gëm seen bopp ba pare bu loolu weesoo ñu wax ne que volonté bi pour wane ne que bugg nañu affaire bi faju ma ne leen yéen entreprise yi nga xam ne yéen a bokk RNES yëpp kenn ku ci nekk na sponsorisé ñaari xale jël ñaari xale yoo xam ne chômeur lañu xamuñu dara munuñu dara nga sponsoriser leen pour que ñu réussir dans la bi man noonu lay def man damay sponsoriser nit damay gis nit ko am projet ma xam ne projet bi yaa ko moom xam ne ngay def ma accompagner la ci projet bi loolu mooy sponsoriser ma sponsoriser la ba nga réussir ñi ma ko defal am na ci ñoo xam ne tey ji ñoo mopp xaalis man te damaa leen teg ci yoon pour ñu liggéey mais heure bi ma wax ak yéen nii ñoo mopp alal mais fierté la pour man parce que ànd naa ak ñoom encadré leen ba ñu réussir donc xale yi loolu laa bëgg ñëwal ko xale yi. ni sa bopp bi tamit day tax ni que bul bañ benn métier métier bu ñu la jox rek war nga ko mën a liggéey loolu moo tax ma joxe exemple xale yi bale nekk ci mbedd bi ndax bañ koy def ay 1980 86 87 bale si mbedd bi nit ñi dañ daan laqatu ci man la laqatu bi jeexee man maa daan jiite xale yi sol sama yére ànd ak ñoom di bale nit ñi xam ni que Dakar yëpp ku ñu mës di def set setal man ngay woo man maa daan wër di dem quartier par quartier di def set setal boo xam ne kenn sant ma dama ñëw ci quartier bi rek woo xale ci koñ bi mujj gi xale yi di ma woo pour ma ñëw di jàppale ci seen set loolu moo tax ne métier la boo xam ni dañ ko formaté ba xëy si ba bi baax xale yi nekk si donc loolu dafa nekk lu am solo bi ci des mooy ñu xam ni que ñun ñëpp sénégalais lañ te xale yi fi ñu jëm amul njariñ parce que la fa nekk. ña fa nekk duñ ko nettali ñi fi nekk parce que kenn ku nekk la ngay dund foofu doo ko nettali sa yaay doo ko nettali sa waa kër doo ko nettali kenn da am gàcce sax pour ñoom ñu xam ca lan nga nekkoon donc loolu jar ko te xale yi bu ñu teetee fii dañu mën a réussir donc damay remercier waa RNES parce que xam naa ni que engagement lañ jël moo tax man leen engagement bi ngeen jël man comme ngeen man comme man maay seen parrain loolu ngeen engagement bi ngeen jël jàppale ni ànd naa ceeg te fépp foo leen di yem maak yéen ñooy àndandoo dem doxi ji ko parce que nag représentant du peuple la c'est-à-dire député la kon am naa mën a am naa foo xam ne sama loxo mën na fa àgg boo xam ne war la leen mën a dimbali ñoom aussi liggéey bi loolu aussi ñu ngi leen ciy sant bu baax di wax ne cër bi nangu nañ ko kontaan nañ ci wax nañ que cër boo xam ni man social rek laay dox man sama àddina yëpp ci social laa koy dox kon loolu aussi day nekk loo xam ne daf may neex si ma gis ñoo xam ne social dafa leen intéressé ma ñu war ànd pour liggéey pour Sénégal maa leen di gërëm dina sant asalaam. Euh, ndaje mi nag li ko wunnu mooy ñëw ñu waxtaan ci li xew ci àdduna bi parce que dañ naan Sénégal rek mais ndawi Afrique yëpp la ñooy dem di jël gaal yi di dox pour dem Europe di mu jaral leen lu ne ñu ne loolu nag ku nekk ngi wax ku nekk ngi naan clandestine immigration na mais ba léegi solution génn ko ñun dañu woote pour génnee solution te am nañ solution solution bi mooy ñu jàngal xale yi liggéey ñu jox leen liggéey parce que boo jàngalee ni liggéey par da nga koy utal mais du nag formé naa ko après bàyyi ko mu dem outil marché yombuta am mais da nga koy gunge mu liggéey mais loolu état tam am na ci wàll duñ ko xaar nag état am na ci wàll ñëwuñu rek pour woo média bi ne leen ñëw leen ñu wax émigration non non non dañ ne nañu ñëw ñu indi solution teg ko parce que ñun dañoo raam jóg ànd ak suñu ay kilifa ñu jàngal ñu dañuy jàngal keneen ñun loolu moo ñu yëkkati ah. ñun solution la indi ñëwuñu pour woote nangam sangam dañoo bëgg nekk patronat non c'est pas ça. Mamadou ak ay naataangoom yu renes dogu ne dinañ gunge ndaw yi ngir ñu am xëy. ba tax ñu ne bépp entreprise bu nekk ci boobu boobule mbootaay di nga jël gën caa néew ñaari ndaw former leen gunge leen ba ñu mën a demal seen bopp. ku nekk dana pare na ñaari xale. man juróom lay pare ne incha allah te si dafa am suivi dafa bu mat sëkk parce que ñun dañoo jóg laa pour indi solution ku indi solution nag da ngay suivre da ngay suivre lépp dañ ko suivre di début à la fin bu soobee yàlla xale yi daañu bàyyi dem ci géej gi parce que dañoo liggéeyul wax naa leen ne leen Basirou Diagne yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko moom ma njëkk a utal visa Allemagne ma ne ko dew ma fii lay toog ba may dem di ba may dem di tukki léegi franc man sama doom yi ànd. Euh, nous avons organisé cette euh, journée aujourd'hui euh, sous le thème euh, l'entrepreneuriat face à la problématique de l'immigration clandestine. Comme l'a si bien dit M. Mamoudou Thiam, euh, nous avons donc voulu apporter une solution à travers des thèmes qu'on a proposés. Parce qu'on s'est dit, pour pouvoir véritablement aujourd'hui capter la jeunesse, il faudrait renforcer les réseaux, les réseaux de formation. euh, après leur avoir trouvé une formation adéquate, il faudra tout faire pour qu'ils puissent avoir une insertion au niveau véritablement du secteur qui les intéresse. Mais pour les insérer aussi, il faudrait d'abord penser à l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat est aujourd'hui une solution, parce que ça permet à tout un chacun véritablement de se frayer son propre chemin. Et à travers cela aussi, on a proposé de lancer un appel à nos frères qui sont à l'étranger, pour qu'ils captent de l'expérience, qu'ils captent des moyens pour venir aussi s'investir. À travers le retour aussi, on a voulu véritablement appeler les jeunes à un retour vers l'agriculture, à un retour vers la pêche, à un retour vers les secteurs qui sont aujourd'hui pour les Sénégalais et par les Sénégalais. Donc nous avons décidé de prendre M. Dembo Diopsi comme parrain parce que à travers sa personne, nous, nous avons voulu euh, le présenter comme un modèle un modèle de réussite, mais aussi un modèle de, de, de combat. Parce que qui connaît M. Demba Diopsi sait que c'est quelqu'un qui a vraiment un parcours élogieux, qui a commencé par rien du tout et qui est devenu aujourd'hui un champion. Donc, c'est ces modèles-là qu'on a voulu présenter aux jeunes pour leur dire que véritablement, c'est possible de rester au pays et de gagner sa vie. Pendant longtemps, euh, nous avons remarqué qu'on a parlé de la jeunesse. Mais aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il faut parler aux jeunes. On a longuement parlé des jeunes, mais il faut appeler les jeunes et parler avec eux. C'est à travers donc le message que le parrain véritablement voulu transmettre, à travers le message que président a voulu transmettre avec les panélistes, qu'on qu'on saura véritablement qu'il est possible de faire ensemble des choses, qu'il est possible, après avoir demandé aux jeunes de rester chez eux, de leur trouver un chemin. C'est pourquoi nous acceptons vraiment de tout cœur l'appel du parrain en sponsorisant des jeunes. Je pense que ça, c'est une stratégie. Là, je pense qu'il a lancé aujourd'hui un grand concept qu'il faudrait que tous les entrepreneurs, au-delà même, en dehors du RENES, que tous les euh, entrepreneurs s'approprient de cette stratégie parce que véritablement, ça permet à chacun de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Donc il faudrait qu'on lui dise que monsieur le, maire, monsieur le député maire, euh, vous, avez, vous venez de lancer une grande idée. Et vous saurez en fait, d'ici quelques années, que nous nous, nous en sommes appropriés et nous allons tout faire pour vulgariser cet appel-là, pour que tous les entrepreneurs puissent savoir qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Nous lançons aussi un appel à l'État pour que qu'il prendre en compte les préoccupations véritablement de la jeunesse qui veut aujourd'hui se frayer aussi un chemin. Donc nous pensons que l'entrepreneuriat en est un et nous allons nous battre pour qu'ensemble nous puissions véritablement réussir à faire revenir la jeunesse et à arrêter le fléau qui est en train de gangréner vraiment notre société. Euh, l'immigration clandestine est passée depuis phénomène à phénomène, mais aujourd'hui il est devenu un fléau et nous pensons que l'entrepreneuriat est solution.